amuñu doole nga xam ne buñ doon xool ci critères mais ci noonu yow euh, buñ xoolee actuellement bu njëkkoon mën nañu wax ne fii euh, département de Mbacké waaye euh, fii ci dëkk bu sell bi Touba PDS moo ko mooman loolu ñëpp xam nañ ko nu mm-hmm. ko neex la fi daan gagné mm-hmm. gis benn benn en un moment donné bi di Pastef ñëw rek nangu ko complètement sur toutes les lignes nag ana wan politique nga yaakaar ne moom moom la waa moom la waa parti bi di Pastef teg fii c'est-à-dire mettre pour pour mën a gagné lu ni mel pour man a def euh, lu ni mel. waaw ah, mooy mooy ñoom bi ñu ñëwee li ñu def mooy dañoo jàpp ni dañoo war a xool yi diggaate fal nan am doxal parce que bu njëkkoon wateel leen ma ma defal leen nangam wateel leen ma ma defal nangam ñi nag ñëw daal ànd def nangam. d'accord. ñoom ñoom ñoom fexe ba maanaam loolu ñu fexe ba ba ba am réussite boobu. maanaam fii lu ñu joxe amu fi lu ñu bokk di bokk di defandoo moo fi am. Hmm. soo ko gëmee ñëwal ànd. sa loxo ci biir soos bi su ma jàppee ndawal nga jàpp ndawal ñu jàppandoo <laughs> mais nekkul que danaa toogal ne leen ma lekk su defee ma jox ñun politique boobu la ñu indi bi ñu ko indee ñi ko gëm ñëpp nag xam ni carrément léegi kon ñu fal la ngay noos wala ñu fal la sa askan di fecc ak tëgg ak dal boobu politique day dee ñun bi ñu ñëwee loolu la ñu teel a indi donte lu metti la nag parce que euh, toog toog soro di mos xaalis wala ngay fayee di liggéeyoo boo bokkee ci mbir mi ba xeex ba gañe loolu moo doon nekk privilège yi ngay jëkk am moo xam chargé de mission lan lay def mhm. moo xam coordonnateur lan lay def moo xam lan la mën def mais say déplacement sa gasoil sa crédit léeg-léeg ñu léeg-léeg nga frustré wu ñàngal fële ñu seere la mosal la benn cinq cent mille wala benn un million nga toogaat ñëwaat duggaat ci point boo xaalis bi jeexee nga yëngalaat ci mhm. teer politique boobu lana gisoon d'accord wala am panel li sax da nga daan ne ba boo ciy dugg yow da ngay mujj jëpp sa bopp da nga naan est-ce que politique politique bii ñuy def fii ci département bi ndax ñi ngi sagal département bi Mbacké ndax département boo xam dana la sëñ Tuubaa fii la gënee jamono ci Mbàkke Bawol mm, mm, mm. Maam moo Jaara maa ngi mag nekk nii dëkk bi mooy dëkk bi nga xam ne sël mooy Tuubaa bu spécial nii sëñ Tuubaa nekk ah nekk fii ci jumaam bii nii ñu ni département boobu kat léegi lépp lu ñu joxe exemple ci politique mm-hmm. ci ci yan yi dañ ko fi faral di gis da ngay dem ba benn moment dafa dootoo woon xemmeem franchement moo nekkee ci panel yi di déglu loolu nga daan dégg mhm. soo nekkee ci panel yi suivre loolu nga daan gis d'accord yàqante bi defante lu ñaaw li warante bi ànd jeyante bi jëwante bi dem ba yàgg kenn xamul kan nga bokk ni benn parti sax mu war laa mën a jàppale di la xeex génn attaqué la sosal la yóbbante police bu dul jeex boo mataane dem fii nii commissariat bu ndaamaan mhm. da ngay tudd yàlla da nga naan xanaa politique moom chaque jour ay ay kilifa ay sant yu yu mag. Hmm. ak ñoo xam fii ci Touba fii ci Touba yu dul jeex. yoo xam te da ngay boo demee fii nii ci eh, commissariat bu bu bu Ndaamaatu. Hmm. maa ngi nuyu au passage sama xarit commissaire Thioban. Hmm. da ce que politique jar na lii. doo toog mukk semaine wala deux boo dégg ñu ni diw pelante wala diw yóbbu na diw nit fenn parce que daf maa daf maa accusé wala daf maa caricaturé wala daf maa def nangam ak nangam. yooyu nag dafa demoon ba benn moment ñu dañoo di maar te pourtant. président Macky Sall bi muy falu fii ci département bi. Mhm. di fi di fi di fi nga xam ne moom mooy euh, président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu président Abdoulaye Wade moomeelam mhm. bi mu defee la président bu ndaw rek waa PDS fexewaat ba récupéré waat seen base. Mhm. jëluñu ko à 100% mais DL la bu am solo. mais ñi nga xam ne mooy tenor yi nga xam ne ñëpp xam nañu ne président Macky dem ba maanaam ñin ànd ci politique sax dañuy toog di leen yàq. pourquoi pas parce que dañuy wax ni. Euh, jikkoy oto bu bañ a tàkk rek da nga leen di pousse ban tàkk rek ñu fàttali. ñu fàttali bu demee ci kaw au lieu que ñu jëndi parti bi dundal parti bi mais dundal parti bi ñoom dañuy dundee parti yooyu nag dem ba tellement que nit ñi màcc kenn xamul fan nga jëm bi politique bi ñëwee fii nag ah wax dëgg yàlla waa parti Pastef ñëw taxaw fi def fi taxawaay bu am solo liggéey bu am solo maa ngi fàttali sax 2019. Euh, docteur Abdoulaye Niane mi ngi nekk tey Sénégal. moo nekkoon euh, li nga xam ne moom mooy directeur campagne Ousmane Sonko. 2019 2019 waaw defoon fi liggéey bu am am parce que moom Daaru Xudoos la dëkk fii la jàngee Touba di doomi dëkk bi di doomi daara di ku baax ah ñëpp xam ko donte boobu am na ñeneen ñu fi nekk mais boobu ay seen Cheikh Thioro yi tey mhm. nga xam ñoo nekk ci département bi boobu mhm. euh, c'est crois que man miinuma leen woon ci parti mhm. ay maam Dame Lo gis nga ko léegi APR la ah ay ñoom Moussa Mbaye ay ñoom Assou Gawane ay ñoom Pape Maguette Diaw boobu ñoom ñoo nekkoon ñi nga xam ci tineel yi kuy tudd Pastef soo déggee seen vocal di nga parce que dañ lay attaqué sévèrement ba pare danga mën a politique nekkoon ci département bi téewul ko seen fukki loxoom juróom-ñett mais euh, euh, mm-hmm. bu départ fii fële lay taxaw yooyu ñu demee gis nga dem APR mm-hmm. ñeneen fële laat nag ay ñoom biram yi man boobu ay biram biram fay mi mi minu ma leen mooy suppléant Ousmane Sonko biram mm-hmm, ñoom minu ma leen mais gis nga tey bi ñu ñëwaatee maanaam beneen air bi ñu indi air boobu nag moo jaaxal ñëpp ay ndaw yoo xam ne miinuñu seen xar kanam ci politique. tey xa seen bopp te ay xale yu ndaw la. waaw te ay xale yu ndaw la naa. waaw te ñu ëpp ci ñi composé Pastef. Mm-hmm. da nga naan ñii sëñ Touba seexal seen maam wala ñii sëñ Touba danaan ànd ak seen maam wala ñii sëñ Touba di gor dëkk bi seen maam naa nangam nangam nga xam ne ndaw yi nga xam ne ñoo composé Pastef ak lu mën a xew moo xam nga ànd ñoom moo xam nga ñàkk ànd ak ñoom mais pire et dur Touba la. d'accord waaw c'est ça léegi nag loolu day te man li ma si jaaxal souvent moom mooy ñoom ndaw ñooñu le nga xamante ne bi ñooy représenté Pastef Touba ku ci mel ay Cheikh Thioro Mbacké ay Ahmadou Lo ñoom bi ñu doog a boo xoolee ñi nga xamante ne bi ñoo nekkoon les tanières dañ leen doon négligé bàyyiwuñu woon bàyyiwuñu leen woon sax xel mais ñu dem ah, mais benn instant rek ñu gis ne ñu commencé fële commencé xale yi commencé leen topp ñu naan xale yi voilà amuñu carte d'identité donc nañ leen bàyyi noonu ay mbooloo lañ yor ay gone rek waa xam nga lii walla fi naan xeeb nga xal mu lakk sa dàgg effectivement euh, politique dafa dafa sew te politique euh, li naan jéeg buy sëy la euh, tont ak togg ak taaj gi muy gi muy gi muy nawee boppam mm-hmm. wala gi ñu koy nawee mm-hmm. du ko jàngee ci sëy daf koy indaale ci sëy politique noonu la politique fii nii ku la dàq communiqué dinaa mm-hmm. rafeti kàddu moo la ëpp sens d'accord parce que boo jàppee ne arrogant moo lay may wala xeebaate moo lay may rek sénégalais bëggul loolu man naa ngi fàttaliku a deux mille dix neuf suma ma juumul wala deux mille vingt. Mhm. Euh, sëñ Cheikh Corom yi bi ma koy jël benn émission ganu euh, RDC. Mourides Info. Mhm. booba euh, man miinantiwul sax bu baax. mais pour wax la ni la bi ma defaree affaire sax fu ñu war koo jël imission dan ni ma kii ngay jël nii lan moo tax jëloo ci ñeneen ñi nga xam ci poire bi ñu ëpp charisme. <laughs> et tout ça pour wax la rek ni la. xeebel googu nga wax ñaare. Uh-huh. ne ko nit ñi di mais après. Mhm. li mu indi Euh, la sama maam la wax nag loolu laa loolu laay gëm te loolu mooy dëkk d'accord mu ni fexe ñu xam la amul solo nekk ci lu ñu xam am solo. très parce que soo fexee ba nu xam la te nekkoo ci lu ñu xam ku la xam xeeb la waaye mu ne soo góorgóorloo ba nekk ci lu ñu xam far la force nit dina la xam te ku la xam naw la. Hmm. ñoom danoo teel a comprendre que ni politique bii ñuy mën a ñoom gañe ko dina metti parce que amuñu moyen bu ñuy jox ken d'accord amuñu moyen de transport bu ñu déplacé woo. Mhm. màggal yi yor ñu enveloppe yi ñu joxe. Mhm. et tout man naa ngi fàttaliku sax euh, am na màggalu euh, Kazu Rajab. su ma juumul deux mille deux mille vingt et un mhm. man maa ngi doon direct de Zik FM. d'accord keroog bi nga xam ne Baye Abdoulaye Mbaye Peex ñi ngi wax naan dem naan bu leen tudd Sonko. waaw Alaaji programme yore yore micro. man témoin laa ci woon. te pourtant gis nga gis nga foofu na mu demee. lan wax bu leen bu bu leen ko fi tudd hmm. te pourtant diabolisation amoon na ci boo xam ne si nii kenn xamul noo ko mën a tuddee. dana war jamono moom kay. Mbàkke la Mbàkke la sant kilifa la. Hmm. Hmm. mais boobu xataay gi ñu xat ci biir dëkk bi pour mën a def seen ay procès mais ñu gëm bi yàlla bind ku dul dee waaye bind ku dul torox nan ko gëm te wuti ko parce que suñ ko gëmee te wuti ko tôt ou tard dinañ ko am bis dina ñëw ñu wuti te bu ñu wutee dina naan. man engagement pour euh, militantisme boobu ñu amee nag. d' accord moo leen may tey lii lépp ñu am. d' accord euh, li ñu am aujourd'hui hui moo di euh, c'est-à-dire une victoire boo xamante ne bi seen seen victoire